assalamu alaykum gaay ñu ngi leen di nuyu di leen dalal ak jàmm ci Sen Sport ans comme ni leen ko waxee woon niki ki démb xale yi nga xamante ne am nañu fukki at ak juróom-ñaar mooy équipe nationale bu Sénégal U17 bi nga xamante ne ni ki démb doon nañu leen xamal ne wàcc nañ foofule ca Maroc di waajal li nga xamante ne mooy Coupe d'Afrique U17 bi nga xamante fi fileeki fan yi néew ci lañu ko waroon a joué maanaam le 13 mars bi keyti xibaar yi fësal nañu ne daal dinañu koy fomm maanaam du daal di am gannaaw bi nga xamee ne kat juróomi fan képp moo desoon ngir ñu daal di jouer Coupe d'Afrique boobule équipe nationale bu Sénégal ni ki démb waxoon nañu leen wàcc nañ ci Maroc ba tàmbali seen ak tàggatu waaye nag buy sukkandikoo ci keyti xibaar yi ñi di kaaf muy kuréel gi ngànk football bi bi ñu amee seen ak ndaje daal ñuy daal aj li nga xamante ni mooy jogante yool wala daal dinañu koy fomm li ko war a nag mooy Maroc dañoo dal di tëj seeni buntu maanaam benn avion du tëb avion du wàcc li ko waral nag muy mbas mii nga xamante ne la lëmbi àdduna muy coronavirus. lii waral na ba kaaf bi ñu yëgee mbir mi waxtaan nañ ci yenn ci kayiti xibaar doon fësal ne sax amaan nañu toxal ko yóbbu ko ci beneen dëkk. waaye daal buñ sukkandikoo ci kayiti xibaar yi la ci ruusee mooy dañuy dal di fomm li nga xamante ne mooy Coupe d'Afrique boobu la duñu ko mën a jouer gannaaw bi nga xamee ne kat ñi nga xamante ne ñoo di FIFA ci fàttali ñoom dañoo daloon di fomm li nga xamante ni mooy coupe du monde bi annulé woon nañu coupe du monde bi ñaal xale yi am fukki at ak juróom-ñaar kon kaaf ñoom itam def nañu ni FIFA daal di fomm li nga xamante ne mooy coupe d'Afrique U17 bi nga xamante ni filee ci fan yu néew ci lañu ko waroon a joué foofu la ca Maroc. Edouard Mendy moom dafay wéy di amal ay jaloorem foofu la ci English Premier League bi tey jii am na li nga xamante ne mooy dix-huitième clean sheet itam muy fukki mat xamante ne daal dina ko joué te kenn dugalu ko ak Chelsea Football Club comme ni ngeen ko xamee Sadio Mané moom mu ngi wéy di am ay jafe-jafe ak Liverpool di fakkastalu waaye nag euh, ki nga xamante ne mooy Edouard Mendy depuis ki nga xamante ne mooy Thomas Tuchel daal dafay dugg si ba fii ñuy waxee Chelsea chaque jour muy gën di am taxawaay bu dëgër tey jii daal dinañ koy firndeel seen diggante ak Everton ndax dañoo door Everton 2-0 Edouard Mendy am lu toll ci 18 clean sheet muy li nga xamante ni mooy 13 ci English Premier League bi ak 5 ci Champions League bi.